OSCAR OSCAR mooy organisation société civile yi ñuy jéem di gëstu ak di jëf ci kaw gëstu googu ñu gëstu ñu jëf ci ci biir loolu balaa ngay mën a jëf da ngay xam li nga bëgg a liggéeyee da koy maîtriser da nga koy xam moo tax ñu def ay gëstu ay études ñaari études benn bi jëmoon ci programme yi ñu wax programme de filets sociaux au programme de de de d'assistance sociale et médicale muy bourse de sécurité familiale muy carte d'égalité de chance muy plan Sésame muy en tout cas li agence de la couverture maladie yor te nga xam ni jàppaleel la faj nit te du ci dugal dara loolu en tout cas moo nekk ci ci ci ci programme bi ñu def ci gëstu beneen ba ñu gëstu ci wàllub kiiraayub waa kaw gi loolu lañ ci war a def ñoom ñu ngi am léegi tey mën nga ni jàpp ni ñoom couverture maladie rek lañu ñu am alors que am nañu yeneen soxla tey retraite tey affaire prestation familiale pour jigéen ñi tey accident de travail bari na ci kaw gi yooyu yëpp lan la ñu war a mën a def mbirub dee itam am na ay risques yu ci nekk yooyu yëpp pour kaw gi lan lañ ci war a def moo ñu andi ñu ni ban mécanisme maanaam kan moo mën a toppatoo loolu mu andi woon ñu ñu analyser les mécanismes d'assurance maladie ci li ñu liggéey bu ñu ko liggéey ba pare gëstu yooyu partagé nañu ko yeggale ko nit ñi résultat yi ci biir fii à Dakar ñu am ak ministère yi dajale leen wax leen li ñu ci gis bi ñu paree dugg nañ ci région yi aussi def ko ak gouverneur yi def ay CRD partagé résultat yooyu liñ ci toftal mooy dañoo teg li ñu naan cellule de veille maanaam pour citoyen maanaam ñu teg ay kuréel yoo xam ne yi ONG kii société civile ak syndicat yi ñoo ko bokk constitué ko ñu tuddee ko veille citoyen maanaam ñuy dem di bàyyi xel ci wàllub li jëm ci protection sociale dans les régions ñoom aussi def nañu ay enquête dem ci ñi nga xam ne ñoom la ñu jagleel programme d' assistance sociale et médicale moo xam bourse de sécurité comme ni ma ko xaar euh, handicapé yi moo xam ñi nga xam ne am jigéen ñi wanu lor te ñu war a am plan Sésame am dialyse ñu war a am dialyse ak ñi nga xam ne ñi couverture maladie maanaam faju gi jagleel nañ leen ko ñu dem ci ñoom laaj leen ñoom nañ la ñu gisee mbir yi bu ko defee ba pare ñëw nañu ci autorités yi partagé ak ñoom gis ci am loo xam ni nemmeeku nañ ko ci mu jëm ci tey gis nañ ni programme yooyu nit ñi vraiment rafetlu nañ ko muy occasion pour encore féliciter le président de la République comme ni ko waa UE waxee sànq Sénégal pionnier la champion la ci Afrique ci wàllu protection sociale loolu Union européenne mu ngi ko wax sànq donc ñu ciy remercier président programme yi baax na nit ñi bëgg nañ ko am na njëriñ waaye am na ay jafe-jafe am na ay jafe-jafe jafe yi biñ ko gistoo benn ci wàllu ci jot ci yenn saay day am tékk-tékk bi ñu jëlee bourse de sécurité familiale gis nañu ni par exemple damay jël exemple Kédougou te am na yeneen exemple foofu nit ñi dañuy jóge def cent kilomètres pour ñëw bu ñu ñëwee nga yegg si Kédougou à 5 heures du matin boo yegg see ñu ne la liste bi fees na tey def nga cent kilomètres da nga obligé fanaan ci fanaan googu ay frais la lay dikkal ñaareel ba léeg ñu gis ci ñoo xam ne ñu ngi ci biir système bi wala jege ko comme ay post moo yore woon kii bi gardien bi ñëw ni la ah danga may jox dara pour nga fanaan fii wala da may jox dara pour ma mën laa yombalal nga jot ci mbir mi. am na ci benn jigéen bu témoigné ne moom bi muy jot bursam joxe na ñetti junni ci 25000 yi mu war a joxe jot joxe na ñetti junni kon mu desee ko ñaari junni ñaari junni boo ci génnee 15 li nga war a passé 100 kilomètres lan moo ca des kon yooyu yëpp ay yàqu-yàqu la ci biir programme bi te mu baax autorité yi maanaam ñi amee dogal président de la république ministre am xam yooyu loolu mooy taxawaayu cellule de veille pour tey ñu ànd di gëstu di xool lu ci kiiwul ñu bind ko def lu ñuy wax rapport alternatif parce que euh, agence yi délégation ak ñooñu ñëpp dañuy def seen ak direction yi dañuy def seen rapport mais société civile ñëw ni man lii ak lii ak lii laa nemmeeku ndax mu ngi ci seen rapport nekkul ci seen rapport mais autorités yi jot ci loolu en tout cas mooy taxawaay bi loolu la projet bi liggéey vraiment ñu koy rafetlu di ci félicité équipe bi nga xam ne moo ko yoroon monsieur Youssou Diop nekkoon seen euh, kanam vraiment def liggéey bu am bu mucc ayib ci difficulté ndax xam nañ ni programme bi mu jotee ci wàllu Covid dafa ñëw bi ñu koy démarrer rek Covid tàmbale. Covid tàmbale mu jàpp ñu at ak lu topp deuxième année bi bi ñu commencé encore ñu dem ba ci biir Covid dellusiwaat mu nekk ay difficulté donc il a fallu ingéniosité pour ñu planifier ak exécuter activité mais ñuy remercier aussi état bi dama koy wax ministère du développement communautaire ci jàppaleem ak yeneen ministère yëpp ministère des finances. ministère yi nekk Sénégal yëpp nekk ci protection sociale ñoom ñëpp jàpp nañ ñu ñu leen di gërëm bu baax a baax. sant di gërëm le projet OSCAR qui est une organisation de la société civile en recherche et action ci li ñu def pour accompagner état ndax euh, bu fekkente ne état Sénégal dafa jël programme bu mel ni bourse de sécurité familiale programme bu mel ni SEMI programme bu mel ni carte d'égalité des chances pour jàppale ci askan bi. doon nañ ci néew doole bu doon ñun noonu ñoo nekk ci terrain bi hmm. mais ñoom bu jëlee sol seen dàll dem ci terrain bi dem ba installer ay cellules de veille vraiment pour xam programme bi nan lay doxee di am ay information di ko remonter di ci def ay études di ci def ay analyses di ci def même ay suivi je pense que ñoom état la ñuy jàppale. parce que bu ëllëgee même tey bu état ñëwoon bëgg a def euh, benn évaluation ci programme boobu parce que meilleure évaluation comme ni ñu koy ni ñu koy waxee day commencer ci suivi te ñoom déjà ñu ngi def suivi bi kon ñun bu ñu ñëwee dañuy sukkandiku ci suivi boobu ñu def vraiment pour faire une évaluation te loolu aussi ñu ngi ñuy jàppale ci ci askan bi ndax ñoom bu ñu demee laaj askan bi nan la ngeen gisee projet yi état di def askan bi ne leen ay la yëwan projet bi ñu ngi koy rafetlu ndax vraiment mi ngi ñuy dimbale ñu ngi ciy gis suñu bopp. mais nag xëy na am na ay manquement ñoom it dañuy dimbali état bi xëy na état mënul woon a jot ci manquement boobu par exemple cas yi ñu joxe il faut nga dem ba au fin fond du Sénégal pour nga xam yooyu te état na comme xam na ko dina ci jël ay matuwaayam ndax aussi comme ni ngeen ko xamee bu njëkk initiative jëloon mooy bourse boobu dañ ko bëggoon a joxe ci portable yi nga xam ne da ngay am message nga jot ko mais Sénégal du ñëpp ñoo yegg ci mën a jënd portable moo tax état doon allié ñaar ñëpp ñu def par portable mais aussi ñu def par présence physique jaarale ko ci post yi mais nag études yi ñu ngi continuer di dem par exemple récemment bu ngeen gisee programme bu ñu lancé nii avec euh, la réponse à l'insécurité alimentaire on a négocié avec un bailleur bon je ne veux pas citer son nom pour des questions de publicité mais bailleur boobu dafa jëlee les garanties nécessaires et il elle va il va se représenter dans toutes les contrées du Sénégal nga xam ne fu bénéficiaire nekk agent am dafay nekk boo ñëwee mu jox la sa ndimbal nga dem sa yoon te ndimbal boobu mi ngi toll ci cent vingt mille francs par par bénéficiaire loolu aussi état mi ngi koy def pour vous dire que dina ñëw ci ñu ñu ñu monétiser ko mu nekk loo xam ni dañ koy systématiser nga xam ne benn njuuj njaaj du ci am mais ay la yëwan dañu nangu ne xëy na am na ay manquement mais dans l'avenir incha allah avec l'appui de Oscar et ses partenaires on va essayer de trouver des palliatifs pour qu'il y ait des corrections nga xam ne euh, lépp dina egg ci ki mu war a egg te du am benn samba booy boo xamante ni dafa am lu mu ciy teq wala dafa am lu mu ciy wut encore une fois dañuy euh, gërëm di sant monsieur le président de la république monsieur Macky Sall ci initiative bu mu am ci jege askanam ndax projet yëpp yu mu teg ci dëkk bi je pense que lii bokk na ci li askan bi gën a gën a gis di ci def kent lay kattanam di remercier aussi le ministre Samba Ndiobène Ka ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale moom it mu ngi ci def kent lay kattanam ak vraiment son directeur monsieur Mbar fay qui aussi n'a ménagé aucun effort vraiment pour fair ce qu'il devait faire donc encore une fois ñu ngi remercier projet Oscar vraiment suñu xel dal na on a un sentiment de satisfaction ndax dem ba ba li ma ci gën a neex ci ci projet bi mooy ñoom dañu dem sax ba installer ay ay ay ay cellules de veille citoyenne nga xam ne loolu il y la collaboration des population ñu dem ba dans les régions presque au niveau de ces douze régions euh, la la la structure et représentée donc le projet est représenté te loolu vraiment lu jara saluer la lu jara rafetlu la ndax presque loolu la ñuy comme ni mu ko waxee sànq ci français ñoom suivi bu ñuy def presque état lañ fa nekkal. Mm-hmm. ndax programme lenn rek moom moo koy doxal mooy suivi ak évaluation. Mm-hmm. programme bu amul suivi am amul évaluation du sotti te ñun ñoo waroon a fay ay experts ñu dem defal ñu suivi bi defal ñu évaluation bi. kon s'il y un projet comme Oscar qui a été inspiré pour vraiment aller jusque là vraiment dañ leen di remercier di leen sant bu baax a baax et puis il y a vraiment une réussite totale parce qu'on a vu toutes les parties prenantes nous all euh, nous disons aussi que toute la société civile et ici présente di leen ci sant di leen gërëm encore une fois